Amadou Ali Kane euh, gis nga ko dënn yaa ngi jóg euh, te législative li euh, xaw naa bari ñetti weer te tamit duggagoon ci campagne bi noo jàngate déjà tension bi noté ci champ politique bi fan yi waa tension bi nag xaw na kawe xanaa di woon nit ñi rek ci ñu delloo si seen xel xam ne ñun amuñu lu ëpp Sénégal ak lu dul Sénégal donc jàmm am fi mm. mooy suñu intérêt ñun ñëpp. ku nekk li nga yóotu mën nga ko yootu te histoire amul donc nit ñi nañu xool ci ni ñuy waxee xam ne ëllëg dinañ ko saytuwaat dina am yeneen génération yu ñëw yoo xam ne dinañu ubbi téere yi déglu rajo yi déglu télévision yi dinañu xam diw mi cal année moo waxoon lii moo defoon lii te ñoom itam. am nañu ay mbokk am nañu ay sët am nañu ay doom. donc nañu seet loolu nañu soraale ëllëg hmm. ana moom. ba léegi ci mbirum maire Dakar gis nu Youssou Touré di ko wax fan yii yëpp ñu ngi koy junj moom mi ngi ci kaso bi ñuy wax naan dañ koy révoqué wala dañuy installé délégation spéciale est-ce que eggum nañ foofu. non man je pense que àggaguñu foofu parce que maire bi euh, dafa am loo xamante ne euh, am na ko muy présomption d'innocence dañ ko jiiñ mais liñ ko jiiñ. findeegul kenn waxagul nekk na te am na yaakaar ni sax bu doxee ba ci kanam dinañu gis ne nekkul alors bu ko defee aussi y a un bureau am nañu bureau aussi municipal. Mm-hmm. maire bi dafa may adjoint am ñeneen ñu ko topp. ñu mën a donc présence am. Euh, physique taxul. mënul gàllankoor absence am mënul gàllankoor liggéeyu mairie bi. même ci kaso ba tam mën na def même foofu aussi mën na fa liggéey. mais même du loolu sax mën na def délégation. de mhm. pouvoir et signature. yooyu nee nga am nga yaakaar ni bu ndawee ba ci biir nag foo teg loolu. man dama jàpp ni que ku waxal yàlla xam na politique lal na lu bëri affaire bi parce que diggante maire bi ak nguur gi. Mhm. dafa mel ne championnat la. Mhm. bu yàgg commencé. ñoo ngi commencé ci élection municipale yi. moom déjà bëgguñu woon mu nekk candidat nekkul woon candidat seen coalition. dafa def liste taxawu Dakar mu gagné liste coalition bi noonu la nekkee maire ñu jógee fa mu def en emprunt obligataire ñu ne ko non loolu du fi amee mu dem ba ay cour su cour suprême suma juumul cour suprême ni effectivement mënul nekk. débouté ko débouté ko ñu jógee ci loolu mu dem ci affaire aménagement place de l'indépendance mhm. foofu itam. mu am xëccoo. Mhm. ba mujj gi finalement moom ñu bàyyil ko loolu ñu nangul ko loolu. alors ñu jóge ci yooyu yëpp commencé nag di jàpp ay ñoñam ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom bon d'abord Bamba Fall. Mhm. ensuite teg ci Barthélemy Diaz am problème yi mu am. Mhm. donc daal am na un faisceau li tubaab di wax un faisceau d'indices. maanaam daal ay mbir yu bari yu xew. balaa jàppam bi yuy wane ne moom dafa mel dañ ko doon wut. Mhm. donc jàpp bi dafa mel ne mooy finalu. alors jogante boobu amoon diggante mag nguur gi. Mhm. waaye final ba nag xamaguñu kuy jël kubba. Mhm. parce que comme ni ma la ko waxee man am naa yaakaar ni ci ni ma déggee dossier bi yaakaar naa ni mën na ci am chance mu génn ci. ci naka ci naka met buñ sañoon ñu leeral ko. waa xam nga affaire bi moom dañ koy tuumaal ni dafa jël xaalisu caisse d'avance. mënu ko justifier. alors boo demee ci benn décret bu ñuy wax décret 2301 du 13 mars 2003 boo xam ne président Abdoulaye moo ko joxoon moo ko jëloon di réglementer caisse avance mmh. décret boobu moo daganal caisse d'avance ni caisse d'avance c'est pour régler yenn dépenses yoo xamante ne bu jaaree ci procédure normale bi day yéex mmh. donc pour comme par exemple ku war a voyager xam nga loolu mënoo def dem ay trésor def ay bon ak yooyu day yàgg wala ay secours ay xeetali xam nga moom musiba boobu buy am du tàggoo. ndimbal yooyu waaw ndimbal yooyu façon yooyu. dépense de fonctionnement jënd ay bureau ay changer ay lamp ay nangam seen ak xam nga yooyu itam. Mhm. mënoo dem ay waaw dépense yu mel noonu daal la ñu wax. de menus dépense sans préciser lan mooy menu dépense yi. Mhm. loolu la caisse d'avance di jëriñ ba pare caisse d'avance dafa am ñaar ñoo xamante ne. ñoo ko seex bo le maire mooy ordinateur moom mooy wax nañu génne xaalis mm-hmm. mais ki koy génne c'est le régisseur de la caisse d'avance mm-hmm. dafa am benn koo xamante ne moom mooy gérer caisse d'avance bi kooku itam am na ku féete kawam c'est le comptable public boo xam ne ministre des finances moo ko nommé alors texte boobu nag article 13 décret bi ma la wax ni 2003 101 du 13 mars 2003 mm-hmm. dafa ni régisseur bi moom moo war a justifier les dépenses waxul maire bi ordonnateur mooy justifier mais le régisseur li mu génne moo ko war a justifier ba pare dafa war a garder le justificatif deux ans su weesoo deux ans kenn laajatu ko justificatif décret bee ko wax décret 2301 du 13 mars 2003 man loolu laa ci jàng article 13 kon mu la comprendre li li naan prescription ci droit mbir mi aussi dangaa ngaa jàpp ni kon loolu la non waxuma prescription deme ni d'abord moom waruñu ko laaj justificatif parce que texte bi mooy at yi nga wax quoi bu weesoo deux ans te neen rapport bi prévoirul ñu prévoirul ñu laaj maire justificatif moom ordinateur la régisteur bi ak le comptable assignataire maanaam comptable bi nga xam ne moo féete kaw. Mhm. régisseur bi xëy na ñooñu mën nañ leen laaj ay justificatif yaa yéen xaalis boobu ngeen doon génne di ko jox fu ngeen ko teg te texte bi defee nii dafa war a garder les boom régisseur bi dafa war a garder les justificatifs pendant deux ans. donc à contrario mooy ne que deux ans yi bu passé su ko neexee mu bañ ko garder. te jàpp ngeen deux ans yi passé na. en tout cas man je ne peux pas rentrer dans les détails ni c'est prescrit ou pas prescrit mais j'invite tout le monde maa ngi woo ñëpp ci ñu dem xool le décret 2301 du 13 mars 2003. boo xamante ne tout le monde cest à mu ngi dans le journal officiel du 22 août man personnellement. je veux pas trop m'avancer <laughs> non mais <laughs> xam na solo maître waaw man deme nii mhm. man dama jàpp ni bépp maire muy Khalifa Sall muy beneen maire mhm. kenn mënu ko laa justificatif ci caisse d'avance ndax date bi weesu nan nga jàpp non pas ndax kii bi parce que texte bi prévoir ko texte bi dafa prévoir moom ordinateur la moom dafay laajte xaalis dafay ni ah soxla naa nangam ki koy génne di ko jox moom moo war a génne lan la fay mhm. lan moo tax mu génne xaalis bi kooku régisseur la tudd kooku am na patron bu féete ci kawam c'est le comptable public moom la comptable as régisseur assignataire mhm. mooy patron ñooñu la ñu mën a laaj yéen lan moo tax ngeen fay lii. <laughs> mais décret boobu moo laaj. mooy deux ans la wax dañu garder justificatif yi. Mhm. décret boobu déggoon ko ñu invoqué ko fenn muy ci avocat défense bi procureur tam ba ni ba muy wax la même chose fii dafa mel ni code pénal bi rek la wax mooy daan yi nga xamante ni moom eh, xamante ne. dafa bari ay texte de loi yu ko manque am na code pénal mhm. si kaw nga def détournement ak le décret bi ma la wax qui crée les caisses d'avance qui réglemente les caisses d'avance mhm. buy wax naka lay fonctionner donc ñaar yooyu boo leen boole méngale leen est-ce que détournement génn ci walla génn ci loolu nag bon mënuma répondre à la place des uns et des autres mais man ma religion est que on ne peut pas demander à un maire des justificatifs des dépenses d'une caisse d'avance kooku registre lañ ko mën a laaj wala registre assignataire hmm. ba pare délai bi c'est deux ans c'est ce que dit le texte nga déduire ci lan ci détention Khalifa Sall bi alors ma déduire ci pour man war ñu ko woon tout au plus mënoon def une information judiciaire mënoon def une information judiciaire contre X certes Maintenant, su fekkee les les les régisseurs ak yooyu et ñooñu sax ñooy responsable. Mm-hmm. c'est beneen bi mooy maître bala ñu la bàyyi muy wàllu médiation gis nañ ci ay kilifa diine yu ci yëkkati seen kàddu am na sax ñu ne am na ñu woo président Macky Sall ngir xool nan leen waxtaanee moom présentement mi ngi ci dëkku diine di Kaolack kilifa diine yàgg nañoo quand dugal seen loxo ci politique ak lu mën a xew ci réew mi ngir jàmm am lan nga yaakaar ni xëy na ñoo it war nañ ko cee mën a def ngir tension bi ñu doon wax de manière générale au delà de affaire Sall boobu mbir yi mën a dellu. Hmm. waaw saa li nga wax c'est très important cest à dëkk bi bu ñu perdre bi ne que y a pas mais aussi am na société civile ci biir société civile leader d'opinion yi maanaam kilifa diine yi ci la ñu bokk képp koo xamante ne boo waxee ñu déglu la mm-hmm. yow ci société civile nga bokk leader d'opinion nga donc ñoom itam ci Sénégal la ñu bokk mm-hmm. ñoo njabootee ñëpp am nañ ci kàddu bu ci war a sànni am nañ ci rôle bu ñu war a jouer pour jàmm dellu si biir Sénégal ci élection la jëm jongante nit ñi nañu xeex dans le fair play ku nekk daal na respecter les règles du jeu ku ëpp ay cartes gagné gouverner mhm. loolu mooy démocratie Mm-hmm. am na solo metre li nga wax am na solo ñu ngi lay sant di la gërëm ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média di fàttali ni ñu ngi doon dalal euh, maître Amadou Aly moom nag militant des droits de l'homme la bokk ci baro bi laataa ñuy dem ci